safar asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu ngi nuyu mboolem jullit ñëpp ak mboolem taalibu yëpp te di ci jiital nag ak cheikh Mouhamadul Muntaqa xafisahullah alxalifatul amdul muridin ci kàddu sëriñ Abdul Baaqi Mbàkke moom sëriñ Xaasim mii toog fi suñu pegg ñoo ngi nuyu jullit yëpp ak taalibu yëpp kàddu yi nag ni ko sëriñ bi santaane. mooy soññante ci bis bu mag bi nga xam ne ci lañu jëm muy bisu 18 safar bis bi nga xam ne ci la ñuy fàttaliku ak a màggal ak a santale sëriñ bi boroomam ci xéewal yu màgg yi nga xam ne may na ko ci bis bi nga xam ne ci la tàmbale liggéey bu màgg bi nga xam ne am na ko ba bépp mu def jariñu ci jariñu ci loolu nag kenn ku nekk war nga bàyyi sa bopp xel bu baax booy dem di wujji woote boobee ci sel sa yene ndax dañuy wax ne innamal amalu binniyat wa innama li kulli imrin ma nawa kep kuy dem di jëfe rek la nga yene ci jëf ja mom ngay am ba taxna serigne bi di wax na yeter pas-pas yépp yene nak ci jëf dafa am solo lol ndax sooy ñaw mu mu mën doon pas-pas wëñ nga bo demee ba nopi firi ko day yomb lol kon pas-pas yene yi da ci am solo lol serigne bi tam di wax ne bëgg na kep ku nek kenn ku nek dem nga gor gor lu ba la fay wuté nga am ko té non nak dara jiitu ci jëf jëf ji ci lepp tak ci lepp tak ndax ñu bari bari ci magal bi dañuy dem waye dañu fa yéne jëf duñ fa yéne dara dañuy yag buñ démé and ak gañu dem and ak gañu ñëw dañuy téla magali lool ba nopi yéex ñu bisi lool té lén luñ ñu fay jëf lu né kenn duñ ci ragné mu bëgg nak kenn kuy dem na nga am fay ak fulla joo xam ne la fay wuté da ko am bu baax ni ko bëggé té moy jëf ju sel ju and ak yéne gi señ tuba tax kon nak ñu ngi soññe bu baax taalo bu yëpp ab jullit ñëpp ci tur Cheikh Mouhamadoul Mountakha mi nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba ñu ñëpp tënku tënku ñu ndigal ndigalam suñu maa ngi ci nuyu ñëpp di soñ ñëpp di bàyyi ñëpp xel bis bi te ñaan yàlla bu ñu ci eggee ku nekk la nga wut ña yéene ba tax nga defa dem nga am ko ni nga ko bëggee ci dolli rek moo di gën a feddali suñu islaam ak suñu taalibi ñu gën a feddali suñu islaam ak suñu taalibi ndax loolu moom fu ñu toll dañ ko war di yeesal ndax gannaaw àddina day yéesal dégg nga sëñ Tuubaa di yeesal fu ñu toll war nañ yeesal des laam ak suñu taalibe ña dëkk tubaa sëñ tubaa di bañ ca tubaa lépp nañ ko bañ seen i kër ñi ñi ñi dem Tuubaa di fekk ñooña sëñ tubaa bëgg lépp nañ ca góorgóorlu lam bañ lépp ñu bañ le ko ko sëñ tubaa bëgg nañ ko ko bëggle bu ñuy dem Tuubaa moo ñuy màggale li ñuy sëñ Tuubaa di bañ ca Tuubaa itam nañ ko ko bañ li ba buñ ko fa yóbbaale waaye ña fay nekkit buñ teeru nit ñi ci loo xam ne sëñ Tuubaa la koo bañ sëñ Tuubaa lu mu bañ ku ko ko bañ la Tuubaa danga fa am ndam waaye la fa bañ nag ku ko bëgg ku ko bëgg sa bis dana ñëw te ginnaaw bis dana ñëw nag bis bu bu dikkee baax rek a baax sëñ Tuubaa mi nu topp nañ topp si moom topp gi nu rafetal ko bu baax kuy dem na am pas-pas pas-pas nag ci murit sëñ Fall moom tënk na ko ñaq ak ñukk ak ñuqi loolu ku ci nekk te yóbbu ko Tuubaa ak pasteef la fa war a jël danga nga ko fa jële waa Tuubaa itam suñ gàttandoo gan yi ci lii lañ war a am danañ ko am waaye sëñ tubaa bañ nga nga di ko ko defal Tuubaa sëñ tubaa di bañ nga di ko ko waxal Tuubaa sëñ Tuubaa bañ ko di mel ngi mel ko ca Tuubaa te ne kenn mënu ko faj aha kay yàlla mën a faj te bu fajee lépp faju jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf maa ngi sant ñëpp ak di gërëm di njaboot di ndokkeel it njabootu Sëñ Tuubaa gépp nag fu ñu mën a nekk rek bàyyiwuma kenn di ndokkeel taalibeem yi bu baax a baax a baax di nekk jullit ñi bu baax a baax ndax bisu jullit ñi mooy bisu Sëñ Tuubaa bii lislaam rek moo tax mu sonne ni mu sonne ci àddinaam ba bi muy dem àjjana résidence surveillée lay bale kon it ñu laxasaayu ba ba sëñ Tuubaa topp ci moom te bañ a gestu bañ a def dara loolu rek baax ci ñun yal yàlla dimbale te defaral nu sunu njaboot defaral nu sunu bokk defaral nu sunu dëkkandoo defaral nu sunu réew defaral nu suñu xol ba yàlla gi ci nekk dara bañ ko dëndal tey maa ngi dànk safoor yépp ñiy dawal oto di ko yóbbu Tuubaa oto baax na teraanga la sëñ Fàllu ci baaxam gi da daan wax ne sëñ Tuubaa am na loo xam ne lii yonent yàlla Suleymaan sax amu ko wax na ko ba tàyyi ma fekke ko yonent yàlla Suleymaan ab tappaleer buy naaw ay malaayika ak yinne la cee àndal di dem fu mu bëgg a dem ci àddina si waaye nag mos a mën a yóbbaale kenn waaye solo ba jekk dugg ci néeg muy dox sëñ Tuubaa ko yàlla defal waaw sëñ sëñ Fàllu wax loolu na sëñ Tuubaa ko yàlla defal sëñ Fallou it fekk na ma Senghor fekk na ma fi sëñ Fallou daal na sëñ Fallou sa bu bi mbaa daw vitesse sëñ Fallou ne ko déedéet mu ne ko ah sëriñ bi pile de cent bokk de cent loolu la ko waxoon kon nag ñu def ndànk oto yi bañ a yàkkamti kenn ku ne liñ ci war a am ci sa wërsëg moom nga ciy am liñ ci war a am ci tuyaaba yaa koy liggéey da ko am kon nañ def ndànk ba yóbbu nit ñi ñu màggali ba magal gi mat jam jàmm ñibbeeg ndànk dara baña xew yakamti yakati yakamti yakati moy am ci sa wori su ko defee nak boy do wota di gëmmentu du soti bu taw bi bat bu taw bi baré du soti bu ngelo li baré du soti yoon wax ne wi dafa lay du soti fu yoon mu musa jaar du soti def ndank nak baax na lool ndax daw ndank dal ndank jam ci am mën naa am sax do ba dal ci dara waaye nan góorgóor ba màggale jàmm ba ñu bésee jàmm te accident yi dara bañ cee am seytaane bañ cee am bunt ba di ci def dara ba di ci yàq dara ñu ñu màggale jàmm ñu bisee jàmm te sëñ tubaa nangul nu sunu màggal dal nu ko yàlla boole nu ñëpp ñay toog tubaa di màggal ñu di leen fekki ak ñiy màggal yi di fekk ñooñu tubaa ñëpp nenu yàlla dimbale tin xool demeen bi ak dikkin weeg yar beeg lépp rek daal moom mënut a ñàkk ci murit murit moom lu mën a dimbali ko ci àddinaam dal ca lay bokk waaw dal nag li ma ci li ma ci war a wax dafa bari waaye nag du fi du fii la waaye meneen yoon mën maa waxaat ci ci murit bu war a dal na mu war a dalee waaw jërë ngeen jëf salaatu lasi fi kulli